bi ñëw laa ilaaha illallaah ba yekki kàllaama tawit xinooga siime ca penku taw jàmmalaay fa la yaaramam ba feeñ waa saw am ngeen ngëneel gu rëy waayoo fa ko ngoroog wakaam danu am ñaar yonent nangu nanu ko ku yàlla yoon di nga woote ku mu yoon niwul loxo da kaw yëgu jàpp naa leeru gu yàlla li maamu lay muy baawaan si dongoom ya du nu caaxaan seen kanam ya dina ñay melax yéena ame diine ku yàlla yoon di nga ku mu yoon niwul doona la yor woote ku mu yónni wul woote yeneen ba feeñ na ca kenn ak jamaana ngeen bëgg koo bañ yàlla utal na ko seede na ngeen ñemeñ ñi seeni téere bàyyi laay feeñ na bilaay bàyyi laay loxo yi ca kaw bàyyi laay bilaay walaahi bàyyi laay loxo yi ca kaw bàyyi laay bilaay walaahi bàyyi laay yónneen ba feeñ na ca geen ak jamaa na ngeen bëgg koo bañ yàlla wutal na ko seede maam matarloo jibril gay ibrahima benga na ngeen ñemeñ firi seeni téere bàyyi laay feeñ na ilaahi baay laay loxo yi ca kaw baay laay loxo yi ca kaw baay laay loxo yi ca kaw baay laay feeñ na yaay faati wàcc nga jur nga buur jur saaba juru yonnen isaaro walaaya baay sama sanga baagoog isaaro walaay maam Seyde isaaro walaay maami Seyna la isaaro walaay leen ko isaaroo wala yàlla ka yónni moom politique ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni mu salina ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni rasulullah yaa beebalaay yaa di xayru xalulaay laay laay la laay لاي يا دي خير خلق لاي لا إله لا الله يا دي خير خلق لاي لا إله laay yaa di xayru xalqu laay laay laay la laay yaa rasulu laay yaa yabeeba laay yaa di xayru xalqu laay laay laay la laay yaa rasulu laay yaa biiba laay yaa di xayru xalqu laay laay laay la laay amam limaamu laay yaa rasulu laay yaa di borom ja ma laay laay laay laay yaay rasuulu laay yaa di borom jàmm laay laay laay laay amar limaam laay yaay rasuulu laay yaa di borom jàmm laay laay laay laay yaa di borom jàmm laay laay laay amaam li maamu laay yaa yonent bi lu yàlla bind yaa ci gën laa ilaaha illallaah amaam li maamu laay yaa yonent bi lu yàlla bind yaa ci gën laa ilaaha illallaah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 来来啦啦，来来啦啦，啊啦，来来啦啦。Lai lai la la Lai lai la la Allahu lai lai la Kena nyang Akan You know to do Ha Tala Kena nyang ak tala Jungi fi ci way kadi Bulin fi indi wadna Kali burir Dani ligay Dimali lenu Dimali lenu bii de laay mujje def dañu liggéey sanga bee ko joxe ndigal ki ak taala ay xale naru dañu réer ñu ngi jooy ñu ngi fi dama bëgg nag ana kan mooy rasuulullaahi wala anamu joxoñ leen ma ko dama bëgg sans micro bu nu paree Ablaye Fall ma am lu ma la wa tasliman ala sayyidil wara am li maam laay leeram yi ñoo dama bëgg góor ak jigéen ñu moom dama ne ndax bare ngeen ñu julli ci bàyyi laay sans micro salaatan wa tasliman ala sayyidil aywa aywa aywa aywa jigéen ñi 覚えてや سيد الورى أم لما مولاي ليرم يا ورا يجنت به وتسليما على سيد الورى أم لما مولاي ليرم يا ورا يجنت به صلاة وتسليما على سيد الورى أم لما مولاي ليرم يا ورا يجنت به luy ka jaral àndal man ci li wax kum ka jaral àndal ñun ci li ñuy wax mam limamu lay leeram ya yonen nga yonen nga bay lay nga kau Yang ketilin salah hal yang ketilin Ku yang ketilin salah hal yang layak lafaz saya bakar Ku yang ketilin salah hal yang layak lafaz saya bakar Lekin apa? Lailah Lailah lên ngờ bay lên lên ngờ bay lên lên ngờ lại là quay gai được lên đi ngoan đánh chạy nga bay la yunin nga lai lai yunin nga yunin nga baay la yónneen nga laay laay yónneen nga yónneen nga ay waay yónneen nga yónneen nga baay laay yónneen nga laay laay yónneen nga yónneen nga laay laay laay waaye ku wax yónneen nga yàlla yàlla faj say aajo ku dem yàlla say bakkaar dañ ay yónneen nga yónneen nga bàyyi laay yónneen nga laay laay yónneen nga yónneen nga yónneen nga bayiloo yónneen nga la ilaha illallah la ilaha illallah nga bilaa yónneen nga ajibo ajibo bayilaa silem diinu yàlla mee laay laay ajibu daaya laay ajibu daaya laay wuy sileen diinu yàlla yu leen diinum yàlla laay laay laalaw ajibo laay laay laay ajibo soo leen ko gaay wax baat bi wuy si rasulullah la ilaha illallah na ñëpp yëkkati seen loxo ñu màggal yàlla ñu màggal yàlla na ñëpp yëkkati seen loxo na ñëpp yëkkati ilala Muhammadu yaay rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha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 محمد يا رسول الله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا محمد يا رسول الله لا إله سيدي عبد الله جرجف سيدي عبد الله جرجف jërëjëf ci bépp deme Abdoulaye yaay ki nu yem yaa nu may salaamate ay waay Seydi Abdoulaye jërëjëf yaa nu wan hidaayate ay waay Seydi Abdoulaye jërëjëf yaa nu wan hidaayate waay waay Seydi Abdoulaye jërëjëf yaa nu wan hidaayate ay waay Seydi Abdoulaye jërëjëf yaa nu wan hidaayate Seydi Abdoulaye jërëjëf yaa nu wan hidaayate ay waay bismillah yi may bëgg a way bismillah yi may bëgg a way Abdoulaye doomi soppe baay ma joon ku ko way am ngërëm fi jannate Seydi Abdoulaye jërëjëf yanu woon hidaayate soppe baay ma joon ku ko way am ngërëm fi jannate Seydi Abdoulaye jërëjëf yanu woon hidaayate Seydi Abdoulaye taxaw Seydi Abdoulaye si ñëw na ba dem mooy borom hidaayate Seydi Abdoulaye jërëjëf yaa nu woon hidaayate xayru naa si ñëw na ba dem mooy borom hidaayate Seydi Abdoulaye jërëjëf yaa nu ay mujizaat ba daa di taxaw mujizaat ba daa di taxaw Abdoulaye doomi saa toog فتاي كلمة محمد الكرامة سيدي عبد العزيز رجف يا نور داعي أيوة تسيد بتاي كلمة محمد الكرامة سيدي عبد العزيز رجف يا نور داعي أيوة ثم يا كريم من ذوي الكرامة سيدي عبد الله جرجف يا نور الهداية أيوة عبد جل نجل بباتي عبد جل نجل بباتي كنت توك نفان تكو دودو لا توك دلكم تيبولو مهيفا سيدي عبد الله جرجف يا نور الهداية Abu Bilal jërëjëf Seydi Abu Bilal jërëjëf Seydi Abu Bilal jërëjëf Seydi Abu Bilal jërëjëf jërëjëf ci bépp domaine Abdoulaye yaay kenn yéen yaa nu may salaamate Seydi Abdoulaye jërëjëf yaa nu won hidaaya ay baay jërëjëf ci bépp lisaan jërëjëf ci bépp lisaan si yaay ki mat kilifa tay borom rasaadate Seydi Abdoulaye jërëjëf yaa nu wan hidaayate ay baay xale yaa yaa nu defar xale yaa nu defar xale yaa nu defar banu mat fa zamana Abdoulaye yaay jëli sax xoli sax di sagarate Seydi Abdoulaye jërëjëf yaa nu woon hidaaya ay waay janta baa ngi dootu soli janta baa ngi dootu soli weer la moomu te dootu nëbbu géeju neex ba daa xaasal noo ngi sàkku surbate ay jërëjëf yaanu wan hidaaya ay waay Seydi Abdoulaye jërëjëf yaanu wan hidaaya te Seydi Abdoulaye jërëjëf yaanu wan hidaaya te kon daal sallallahu rabbul ibad ala rabbu di sayyid بعد خير ناس الشمس العباد سلما بصحبته سيدي عبد الله جرجف يا نور هدايته ñu ngi ñaan ñi nekk ci kanamu caméra yi ñun ñii amuñu chance wala am ngeen chance fekkee ni toog nanu ba yëkkati si karu dee bi ñu war a jóg ñu ni yen doo leen jóg na ngeen ni sangay ndax caméra yi dégg ngeen yéen dañuy toog maanaam ñun ñii ñun ñi nekk fii loolu mooy ndigal li maxtaar wala ku bëgg a taxaw rek nga dugg ci biir raa yi bàyyi caméra yi bi bu ko kenn kii ñu julli ci bàyyi laay allahumma salli ala sayyidina muhammadu salli wa ya rabbi salli ala muhammadu allahumma salli julli سيدنا محمد صلي وسلم يا ربي صلي على محمد اللهم صلي على سيدنا محمد صلي وسلم يا ربي صلي على محمد صلي وسلم يا ربي صلي على محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلي وسلم يا ربي صلي على محمد اللهم صل على جلال بابي نكو جيما واخ جلال بابي محمد صلي وسلم يا ربي sali ala muhammad sa diina dootul fay walaay yàlla la wóolu jox la ko yow it nga wóolu roo walaay mu jiitu gëm ya topp ko allahumma salli ala sayyidina muhammad salli wa sallim ya rabbi salli ala muhammad caw sigil nga mboolem axlulaay sigil sa ba ak sa sigil xalifa roowana ba saaba yëpp maare naa allahumma salli ala sayidina muhammado salli wa sallim fa ku naw sambar demal ba yoof nga rëndal fa géej ñi allahumma salli ala sayyidina muhammadu salli wa sallim rabbi nu kum tawalu noon na seew ca di na day ku beew jëfam nga yàlla xoolu ko allahumma salli ala sayyidina muhammad salli wa sallim ya rabbi salli ala li bàyyi li baas di def rijaal su dee mu daane ko oo oh, mbiram mënoo su ko misaal ñi gëm toolu xam na noo allahumma salli ala sayyidina muhammad salli wa sallim ya rabbi salli ala diggante Maamur ak Yaraax diggante booba ganna naa sa lef mayaa loroo walaay nga war la naara pepp naa allahumma salli ala sayyidina muhammadu salli wa sallim ya rabbi salli ala muhammadu allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillah la la la alhamdulillahi kathira lay subhanallah ila ila la allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira lay subhanallah ila ila la allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi bay lay ne subhanallah ila ila laay bay laay nee subhanallah ilaah ilaah akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira laay subhanallah ilaah ilaah allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira laay subhanallah ilaah ilaah alhamdulilah bay laay nee du maanal laay ilaah ilaah jom ba xaara ku yàlla nga suur wara jom ba xaara ku yàlla yakal nga suur wara jom ba xaara ko jakaw nu julito walu nga suur wara jom ba xaara rasuur wara joom baxaar waaw waaw ba bay lay feeñagul dunyaa lëndëm na yéen gërëm leen góor moo amee diine gërëm leen góor gi moo amee leeri diine gërëm leen góor gi moo amee leeri diine waaw xayarutuma diine loxo ca kaw loxo ca kaw wax leen xayarutuma diine buy jaayoo ñañalaay pey ba nuy sekk maam waaw waaw yaboo maare am yaboo maare am ngeen mbër fa diiwaan yaboo maare am ngeen mbër fa diiwaan yaboo maare am ngeen mbër fa su ngeen yaboo maare am حمدا جديدا دائما بقى إمام الحرمين ñu sant baay laay minu teeroo taandi